asalaamaaleykum mbooloo mi je pense que lii suma devoir rek laa def man euh, dafa ma bett sax engagement yi ma fi jël yi ngeen fi jël ci man parce que xaaruma ko woon man comme ni ma ko defee ci ASC jàmbaar nekk ko ci ASC étoile noonu laa gëme woon ni ASC Cité euh, juboo noonu laa gëme woon ni ASC euh, Guelewar warul am problème te taxawuma te bu matoon bu ëppoon cinq cent mille bu ëppoon cinq cent mille tamit bu ma ko mënee dinaa ko def bu ma ko mënul dinaa ko wër bu amul bu ma ko amul ma jaay lu ma am yëpp def ko ci parce que loolu mooy suma devoir may gërëm Samba Fall bu baax di président commité supporter bu euh, astafurlah di président euh, comité électoral bu PDF Modou Kane di beral aussi les jeunes et les femmes du mouvement conscience citoyenne gëm sa bopp nga xamanteni ñoma ñoma accompagner euh limay wax nak man li ñu wax yëpp ni sax def naa ko ci suma gars ñoo bax diko ko tudd rek mais man suma devoir lay def parce que avant le 30 juillet euh, euh, le avant le 29 juin 2014 avant ñu dem ci local yi dama len wax ni woon le 30. man damay continuer nekk doomu Cité Lamy dara du changé maay nekk ak yéen man maay toog ak yéen man nag am naa droit parce que naar bi daf doon yuuxu am problème mu jël gémmiñ gi jëmale ko gànnaar ki koy ki mu àndaloon pes ko ni ko yow foo jëmale sa gémmiñ gi mu ne ko foofu laa koy jëmale parce que falaa ëpp yaakaar man aussi sañ naa bu may wut ma ñëw suma waa koñ wax leen ni ah man day yéen laa yaakaar ci li nga xamante ni dinaa ko wut te loolu la def élection yi passé bi ñu ci demee bu ci gisul continuer je pense que l'homme est suñu devoir man dama leen waxoon ni kérok biñ ñu ma waxee laa leen waxoon ni mënoon naa leen ko yobanté ñom ñoni ni bëgg nga ñëw def ko nit ñi xam ko ba ñu am fuñu téy pour mën la jappalé donc je pense que def ngeen un devoir mooy wane ngeen seen yéene Bodian li nga wax fii rëy na parce que c'est trop fort donc li ma leen di wax mooy man damay wax rek jàppale leen ma pour ma jàppale koñ bi parce que li ñuy dund ñun li ñuy dundu moo xam ci ñàkk ndox la moo xam ci euh, tali la moo xam ci lépp kenn koy mën a régler mooy ku politique ba jege njiitu réew mi ànd ak moom ñew yóbbu doléance yi mu régler ko parce que kenn du fay ab salaire millionnaire gisu leen ben millionnaire ñun la mo defar tali tali ben kilomètre tali un milliard la c'est-à-dire c'est des investissements lourds yi nga xamanteni état moko mëna def état nak budé daf koy def lim koy mëna défé moy ñëpp certes mais imaginez-vous chaque fois bu fekkente ni parce que élection ndax yama saf la rek ñu né bulletin yaa ngi nii ku len saf imaginez chaque fois. buñu démé ñu né ah président Macky Sall man day suma xarit nga suma mag nga japp nga ni amna naa compétence boole nga ma ci li ngay def mais suñu wa ko ñe nee nañu lo leen yeen lolu nañu xalat en fait ni mu metté quoi ça dire dafa metti quoi du da ngay bëgg sax di nga ko bëgg continuer mais xam nga nak li xalé yi wax légui ay wax sax day jeex donc day am lo gis day am ben moment bi nga xamanteni

méngoowul ak man sama taxawaay ci koñ bi xëj na nag am na beneen lu leneen lu tax mais comme xaw ma lan la ah nañ ko seetaat rek mais damay wax leen lii cinq cent mille xëy na def ko ci ASC loolu lu nit mun la lu mën a nekk la mais pour defar koñ bi lenn rek la ndax day nekk ak man ak position bi ma am ci côté état Sénégal wala day nekk ak keneen te njort naa ni comme gisuma keneen ku fël te koñ bi presque man maa ci taxaw ci wàllu politique njort naa ni bu ñu occasion bii rëccee parce que dañu am quatre président de la république am nañu Senghor am nañu Abdou Diouf am nañu Ablaye Wade tey ñu am Macky Sall ñun ñi ngi soog am chance am benn doom bi nga xamante ni directement ak président loolu waxuma sax par far mais damay wax même bu fekkee da nga ni ànduma ak Malick mais nekkal opportuniste nga sama koñ la gëm dina fexé mu parce que luma ma mën directement parce que président du ñëpp lay xam président Macky Sall ko xam mais il ñi nga a ñi ngi koy sonnal def donc parce que donc man dama bëgg position bima am au côté du président ngeen ko à fond ba nga Moussa Lo wax 2019 Sorry buñu démé élection ngeen jox ñu majorité fi de moo mais 2019 bu fekkee dara changé wul man awma fitu ñew di l'ajat baat bi donc et je crois que diggante ba nop fen xaju fi j'ai dit ñi ngi 2018 2017 dans un an et demi mais sas seulement, ma comme li El Hadj wax yow la def nañ lu ñu waroon def li ci dess nak sas nañ ko man dal dama leen di répéter ni, suma yakar, ci yeen bëgg nag du yaakaaru individuel du personnel parce que ku ci nekk yaa ngi faj sa soxla te xëj na fekkuma la ci mais communauté bi dafa am lu ñu bokk te gis nga responsabilité génération daf koy assumer parce que fii lu fi baax suñu papa yi ñoo ko defoon suñu maam yi paa yi nga xamante ni yëpp jógee nañ fii yàlla leen yàlla yërëm ku ci doon ñëwaat fii vingt ans après doo réer ñun ku ci nekk da nga war a wéy nga wax mais man man lan laa defal Cité Lamy man tay ba bu fi yamee à part ñu ne def na lu baax def na le tax may mën def ci Cité ñu ne tali bi dugg na fi doxantul ba Grand Thiès bo demee rek nga xamni dom ju falu te am puissance ci état rek mo moko mën donc je pense que appel bobu lañ leen di lancer bulletin bulletin baa ngi Samba Fall limu wax sank wax ni ñu am résultat bi ak Siré daf leen bëgg wax ni rek élection législative yi du man may falu ñun dañu am candidat bu tudd Siré Dia mais ku ne xam na ni Cité Lamy luñ fi liggéey di ko jiite di ko war a fayee ko bu ñuy natt kenn du natte Siré Dia fii parce que moom li mu war a def ko ñam ak waa ko ñam dinañ ko sagal ba ànd ak moom mhm. léegi ñun li ñu war a def mooy ñu ànd ba nga xamante ni victoire bi nga xamante ni DG Siré Dia dina ko am ba nekk député Fatou seen am ko ak investi yi Abdou Mbow yëpp am ko fi ci mo de Kane day nekk ci li nga xamantene dañ koy téye teg ci loxo président de la république Macky Sall nga xamantene le lendemain nak 31 juillet affaire bi day nekk suñu affaire bopp. donc je pense que ñëw ñu sax pour wax waxu politique politicienne sank dama dem ci euh, chapelle bi même manam église bi bi ñuy wax ma ni leen ma fenn l'en. ndax duma ma ñu né ñu gis nañu de ñun suñu toiture bi day yàqu ma man engagement man jël engagement toiture bi dinaa ko defar ba mu biñ ma waxee ni ma ah ñun dañ ko bëgg ah, pour ngeen pour ñu ko loolu président de la république moo man xam nga dafa am bu leen xam parce que démocratie c'est un produit de luxe liberté dafa am lu mu laaj nous en vérité ñun Cité Lamy amaguñu moyen wu libre devant l'État xam nga tay ku dëkk Cité Malick bu la nexé nga contre parce que xeyna am nga kay yo am mais ñun jumtukaay yi ñu soxla nañ bàyyi ba mu teggu ba paré ñu sogo def nak bu ñuy ñu sogo opposer wu mais ñun suñu dara matul pharmacie bi la seule chose bu ñu am normalement pharmacie bi biñ koy inaugurer dañu waroon a woo ñëpp ñu ñew téwé ko parce que à part pharmacie bi ñun amuñu dara amuñu tangana bu baax amuñu dara dara li nga xamante luñu mëna wax la mais est-ce que ñun dañu mérité di dundé noonu je ne le pense pas té chaque année ma wax leen leen dina noté ni xalé yi am bac bfm ak bac chaque année dinañu am marge de progression de 5 à 10% pour ñaata nit ñoo amone bac en Cité Lamy en quatre vingt ñaata lañu 90 tey ñaata lañu donc cadre yi ak intellectuels yi ñi ngi ci mais nañu jóg am taxawaay bi je crois que euh, bu ñu defee noonu Bodian am taxawaay bi ak mon frère li mu wax léegi mu nekk un engagement bu wér parce que ay carte moo koy réglé ay jinne duñ ko réglé ay carte ñoo koy réglé moi je pense que loolu daal bu ñu ko defee mën nañu am yaakaar et que après nag mbir mi dootul nekkati seen problème sama problème lay nekk man parce que quand je vais chez mon président Macky Sall dama koy wax quartier bi ma waxoon fii nga wax premier ministre Bindel, ma waxaat eh, eh, eh, assainissement nga ministre assainissement na bind président quartier Bobo, 18 bureaux de vote là, le centre bi plus Sénégal centre Bobo, au pouvoir mosu ko gagné désormais nous sommes là. la après comme li ma waxoon il ay wax day jeex. mu président nag le war mooy nga jàppale ko donc ñu ngi sant ñep di gërëm ñep di leen encourager en tout cas di wax ASC Guelwaar man c'est une ASC que je porte dans mon cœur parce que esprit là, ñu xamé ko spécimen yi dina leen jox lu doy ngeen défar ko amna tamit fiche yi nga xamante ana fiche bi ñun aussi pour organiser parce que xam nga ku dégg ci élection da ngay bëri expérience 2009 2014 bu ngeen di 17 vous nous Moubaye bu bari parce qu'en 2014 dañ ko def gis nañu ah, je donne un exemple Si vous avez Serge Serge est def responsable centre de vote responsable mobile de Serge Il 24 personnes yu ko ni voter 24 le nga l'élection. amul explication. da nga len di wo ñuy voter ba nga xam ñaata la nga xamanteni ni Serge bu say 24 maté da nga nan ah euh, Maodo man kat moom ma nit ñi mais amna ñaar fukki nit ak ñent ak man muy juróom voter si nañu te Benno bok yaakar lañu voter ma len di wax ni le rendez-vous bi ñu jox ñepp moy 7 h 30 demi bëgguñu ku fa arriver à 7 h lañu bëgg mu fekk ku bëgg voter te bëgguñoo voté ñu ngi lay jox rendez-vous devant le centre de vote de Modakane buñu ñu bureau yi qu'on soit les premiers à aller voter nga xamante buñu démé midi sax bu ñu mi ngi taw dina fekk ni ñun ñoy majoritaire mais aussi munoon ni bëgg nga nit ki dina la jappalé wax ji neex te nga ni naa ndékki ba paré ndéki dem ni bureau yi dafa fess bayil ma xaar midi après añ ba paré ni na xaar 18 heures mu tej nga ñëw bëgg a mottale yeneen yi ay wax duñu la déglou je crois que Pastef bi aussi il faut ñu matérialiser ko par un acte bu fort moy acte bi nga xamanteni moy dem voter dem jëli sa carte d'électeur dinañu fexé ba maximum ñi jotul sen carte d'électeur ñu jot ko nga xamanteni dinañu dem voter au soir du 30 juillet ñu def la fête aborder nak légui nak après loolu bu amé saison wu Guelewar nekkatul problème man sama problème la donc vous pas, sentir, ñëpp merci Serge